mënoon naa def retour aux sources mu nekk pluriel waaye xam ne sa naan waay mooy tax nga xam ne naan waay yi. comme ni ñu leen ko waxee woon nag ci suba ba léegi di jaasaan fii nekk si programme bi nga xamante ne Cheikh bu Diop moom moo koy def di delloo di ko Cheikh Mouhamed Kounta ba tax na ñu ngi nekk toll si guddi gi ginnaaw ñu ngi toll si guddi gi nag ñu ngi toll si jàppaandaw bi lañ ko mën a wax macha allah Cheikh bu Diop dugg si na nga def na jël na kàddu di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawaay taxaw si bis ñu joxe seen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko ji teraanga ba tax na ñu ngi remercier ñi nga xamante ni ñoo ko julli ci tey yëpp la kon ñu ngi kontaan bu baax di wax ni jaajëf guddi gi nga xamante ni guddi gi nga xamante ni ñu koy def tey fii ci Ndiassane ñu teewal Cheikh Mouhamed ko ñu koy wax Cheikh bu Diop mu am taxawaay professionnel lépp rafet la macha allah lépp doy na macha allah organisation organisateur bi doy na euh, jaar na yoon lépp li nga xamante ne rek ñu ngi ko fiy def def nañ ko si yoon. kon ñu ngi sant yàlla bu baax xanaa ci kanam rek ñu def leen siwit bi nga xamante ni moom mooy continuer bi nga xamante ni Cheikh bi Diop commencé jàng tàgg yonent bi ba bët set ak fi nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamed Kounta ñu leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne ba si kanam incha allah jërëjëf xanaa ñu jël nga xamante ni ñi euh, toog fii rek interview kenn rek voilà ñu xool rek nga xamante ni soxna Ayu asalaamaaleykum bu nomee ko. waaleykum salaam wa rahmatulah. ay ñu ngi lay laaj nag ci bis bi lan moo waral sa teewaay tey fii ci Ndiassane ak lan moo waral taxawaay bi nga taxaw tey si Ndiassane fii nga tey. waaw macha allah konti si di la delloo nuyoo bi. di leen ziara di sant samay waajur di gërëm sama wasila Cheikh Mouhamad ñaan yal nañ ko yàlla faral waa bés bi moom teew fi macha doon doomu Ndiassane d'abord ci day ci baay euh, ki nga xam ne moom moo waral bés bi it di doon di yaay si man sama xaritam di sama lépp bokk ci moo waral teewaay bi macha allah. maanaam daal ñoo ko déggee yow si famille bi nga wala si taalibe yi nga wala wala lan waaw macha allah bokk ci wulaat bu chef ndax eh, li ma si boole mooy sama waajur bu jigéen ki ko jur di soxna Lalla Kunta ñoo ko gën ci Lalla muy doon doom ci maam Cheybani bu chef maam Cheybani di doom ci maam Daas ñu ngi kontaan ba waa léegi nag bu ñu xamoon boo amoon tey bi looy dolli Cheikh bu Diop wala loo koy wax ci li nga xamante ni loolu lay liggéey ak jeunesse bi nga xamante ni tax na leen ci seen ci boppam di àndal ak ñoom ci liggéey bi ci sell ak ak ak ak éducation bu rafet boo amoon loo koy dolli tey lan nga koy waaw macha allah di ko gën a ñaax rek te xam ne lu baax moom macha allah du doy te rawatina lu jëm ci borom Ndiassane ndax maanaam borom Ndiassane géej na du jeex kon kuy baj ji bay jëm si waaram rek fa tabaarkalla macha allah dañ lay wax ne la rek bul am tànku gannaaw bul geesu parce que boo ci nekkee moom doxal rek jëm si kanam bul geesu kon ni ko soxna ay waxee ñu ngi lay jaajëf bu baax di rafetlu kàddu yi rafet na macha allah comme ni mu ko waxee rek képp ko am tànk kanam bul gestu maanaam bu déglu da ngay gumba toxlu ba tax na macha allah li fi teew ci nit macha allah kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ki nga xamante ni mooy Cheikh bu Diop di gërëm tam ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamed bu waral lii ñu leen di jaajëf bu baax si kanam incha allah rabbi